am nag kontante bu baax sant yàlla ci lii mu ñu defal muy ndam lu rëy ci ñun ndax comme dañoo amoon sunu nawle di sunu dëkkandoo di sunu sëriñ ñu jàpp ko ci wax dëgg yàlla loo xam ne si ne xëy na njuumte rek la woon bu yàlla dogalee ñu dem ba yoon def liggéeyam ba delloo si waatal ñu ko ci sunum réew duñ def lu ñun sant yàlla ndax dañ ne xale buñ jéng te loolu ci daara la la am naka jekk ci daara loolu moo fi mas di am man mii di wax ak yow Louga laa jàng daanaka def naa fa fukki fi ma doon jànge loolu am na fa kon ñun loolu boo amee du ñu jaaxal ndax lu ñu dund la te loo xam ne sii la Sénégal daanaka ñu ko ci xamul bariwul kon su amee ñu ko xamul ñoo ko réyaloon rek waa ñun xamoon na ne du lu rëy duñ def nag ñun dundu sant yàlla rek. ndax ki nu jàpp day suñu xarit di suñu sëriñ su ñuy xale fi bari na fi ñoo xam ne koo laaj mën a sëñ Xaadima ko jàngal te ñëpp man ko seede muy def ko tub lu baax ci dëkk bi di jàngal suñu xale yi jaggaaniwun dara ñun waa Njaañ ngir yàlla ak jëmmi waa Njaañan gii ak seen jarbaat bii ñu am nag ñu xëy rek ne dañu koy am neneen nu ñu koy def ñun waa Njaañ dañuy lànk ak nu nangul ba ñu ci woon dara lii rek mooy am jàmm am ni mu demee ñëpp xam naa ko waaye duma ci wax ndax sama mag ju ma bokkal benn baay moo doon moo doon tëgg jéng bi kon kooku xam nga dara umpa ci mais duma ci dugg mhm. li ñu intéressé woon ca neex ñu mooy ñu bàyyi sëñ xaadim bàyyi nañ ko jàmm mooy njëkk mooy mujj bu amul nit nag leneen lu ñu gis baax na waaye tey comme bàyyi nañ ko jeex na te Njaañ mi ngi nekk dëkk boo xam mi ngi ci ñetti téeméeri at lu topp di dëkk boo xam si ci alxuraan lañ ko sampe ci chaque jour ñu ngi fi wàcc ay kaamil sëñ Xaadim moomu dong weeru koor wi fii ci jumaa ji ci jumaa Njaañ ji moom daan daana fi wàcc ñetti kaamil ci weeru koor biir weeru koor wi moom lay naafila même man mii man mii li mu doon def damaa jàppoon ne mooy dëgg ndax man mii ci sama wàllu bopp dañ ma daan jéng dan ma daan jëng comme moom ni mu koy defee te moom ci boppam itam moom Xaadim dañ ko daan jéng dégg nga ñu ngi may nett li bërki démb ne ma kër bàjjenam bàjjenam mos naa mer ba ne da koy ji delloo si ko ci ay mbokkam bi muy jàngee njaarim ndax boobu dañ koo dóor ba nga xam ne si maanaam moom ginnaawam gi danoo fop cox di ko diwal cox maanaam lañ ci doon def biñ ci sottee cox bi dafa mujjoon ginnaaw gi dafa futt ba yàqu loolu lépp jaar-jaaru daara la daara du rey kenn képp koo xam ne lu toll ci ñaar téeméeri donga nekk ca biir daara ja ñu tànn ca ñeenti nit dongu jéng leen xam nga ne ñooña am na lu def même que même prison yi ñu xam si ci leen doomu aadama yi boo demee ci biir prison yi am na ci maanaam fàggu nañ fa prison yoo xam ne si ñu gën a të ñoom lañ fay dugal kon nag loolu moom mënul ñàkk ci àdduna bi li ñu bëgg daal mooy nañu gouvernement bi jàppale ci daara ñun xamuñu lu dul daara. Serigne Khadim li mu def ba tey yoon topp ko dafa bokk ci ñun suñu cosaan dafa bokk ci suñu aada ci réew mii ni ñu fiy jàngalee alxuraan xam nga du dongo yi jaar ci daara yëpp la ñuy jéng déedéet boo jëlee téeméeri dongo yu jaar ci daara xëñ na benn wala ñaar lañ ca jéng te amul benn dongo. buñu yëkëti mu bayiko kër ndayam ak bayam ñu aksi rek ñu jëng ko amul day ñëw wone acte ñu jëm mu wone wa acte ba mujj amuñu pexé ñu sokoy koy té jëng gogou bu fekkonté ni réew mi ñu sérieux ñongi fi ci ñi wax la wax di décrier ak di bëgg ngañi ŋàññi sëñ Xaadim bu ñu sérieux woon dañuy def ay étude bu defon ay étude ba xol ñi nga xamni jëng nañ leen ñëpp ñu sét ndax am na ay sékel yu ñuy traîner bu boba ñu man ni effectivement li baxul nañ ko bàyyi waye lo xamni Cheikh Ahmad Bamba ci lool la jaar ci daara yi mam El malik si ci la jaar ñi leen jiitu woon tamit ci ay kilifa ci lañ jaar ñi fi ndessat ci seen ginaaw seen jabo gep ci lañ jaar dégg nañ fi seigne Abdou Lahad Touba gi fuñu fi def abja wala leneen rek taxani na fa wala ma and fa ak sa morom taxani est ce que ñoñu gis nañ dara lum leen wañ ci leen jaar ci non lañuy forger nit. ñun Sénégal lool lañ xam Sénégal nag du France waa France nañu xam lool droit de l'homme yi aussi nañu xam ni Sénégal du France te du mës a doon France. kon mbir mi lu simple la mbirum daara ñi yëngu ci daara te daara yitteel leen ñoom ñoo ci war a toog waxtaan ca lañu cay dogal ñoom ñoo ko mën a dogal waaye mënut doon mukk mukk mukk loo xam ni véritablement ah ay ay nit ñoo xam ni xamuñu ci daara dara seen daara euh, euh, seen yoon nekkul ci daara. ñu ñëw bëgg a imposer waa daara loo xam ne si véritablement loolu tegul ci yoon.